yoo xamee ne mi ngi ko yëkkati kii di Adja Sarr teg ko nag ci dërëb Ousmane Sonko ne def ko doon jéem a def viol loolee nag nekk loo xamee ne mi ngi circulé ci internet bi kenn ko nekk di yëkkati di yëyti yàb bi ci mbir mu ni mel laaj bi samp ci askan wi ba xam naka lañ ko daal di mën a jàppee sëriñ bi moom di xamle ne tamit moom waxi politique rek la ko daal di jàppee ngir gàllankoor kii di Ousmane sonkoo man de ni ma ko gisee politique la politique la te ñaawlu nañ bi ni muy doxee ndax Sonko li mu woon Sénégalais yi wuute naa ñu di ko accusé ci affaire jigéen. de naan viol ak nangam nangam ndax moom wax dëgg yàlla man sama gis-gis sama gis-gis nag laay waxee man rafetlu ma ni ko gouvernement bi ni ñu ko doxalee ñaawlu naa ko waaw en tant que mag nag yàgg ci réew mi gis ni politique bi doxee rafetlu wuma ko man daal euh, wax dëgg yàlla Sonko moom euh, loolu foogee wuma ko xalaatuma ni dana dana dana jëf-jëf ju mel noonu. waa ji moom dellusiwaat ci mbir mu ni mel di xam ne ne Ousmane Sonko yàgg nañ ko wutal ay traces yoo xamee ne yàgg nañ ko cee teg ba tax na tey jii nag ñu daal di indi viol bi dal teg ko ci kawam. politique la rek yàgg nañ ko tuumaal Sonko ñoom yàgg nañoo lu nekk jël nañ ko teg xanaa dañoo ndig ba jamono bii rek ñuy door a ñuy door a xalaat ne viol bi xëy na muy koy nekk lu efficace lu ñu ko mën tuumaal mais du sens dara si données yi parce que yàgg nañ ko tuumaal lu nekk ay financement islamique robel Casamance yi kenn waa jox na ko xaalis yeneen coow yu bari yàgg nañ ko tuumaal mais ba léegi daal gis ñu benn kii boo xam ne ni mën nañ ko teg teene Sonko moo def lii te xam nga ay viol Sonko du nit koo xam ne koo xam ne ni sax yow booy def dara bu waxtu julli jotee campagne nga arrêté oto dem julli ñëwaat kooku du sanru nit nit yooyu waaw moom nañoo xool nag beneen ak beneen anam bu ñuy politique mais lii moom rafetul jëkkut askan bi dañu ci gën a jéppi xam ne ba ñu gisee ne tamit sénégalais yi jafe-jafe yi i loxo jéppi leen rek la fa sénégalais yi daal di def politique Sénégal dafa salte moo tax kenn bëggul nekk politicien politicien boo xam ne ku nekk lu ñaaw rek nga yekk sa morom te loolu mën naa ñàkk ku bëgg lu ku bëgg politique mën ngaa politique su lu baax yéenante jàmm waaye loolu suñu suñu politique Sénégal dafa salté lu tax mu salté mooy kenn du yéene sa morom jàmm kenn lu waaye kii safaan rek ngay wax sa morom loolu du politique. ab sëriñ sax war naa mën a politique waaye ni ñuy politiquer moo moo salté Sénégal moo tax sëriñ sax ñemetuñu wax ci politique kenn ñemetul wax ci politique te politique lu lu nekkul lu bonde lu yàlla digle la lu yàlla santaane la waaye ni ñu koy defee fii Sénégal moo ñaaw. maay waxante lu ñaaw tëmante dëmm ku xam sa mbootu ba moroom su sulli ko te loolu jaaduwul. politique nekkul pour yàqante ay der maanaam sénégalais bu ñu la fi tegee pour nga faj seen soxla defar dëkk bi waaye nekkul ngay utiliser ay nit ay moyens ya nga xamante ne nii dina yàq deram. waa ji moom dellusiwaat di ñaax kii di Ousmane Sonko di xamle ne bu mu bàyyi loolee mu dem benn yoon na ci daal di taxaw def ci ay lanket yu yaatu ba xam mbir mu ni mel lan moo ko sabab. na ko na ko yoon topp sonkoo na def li mu war a def ba setal deram parce que lu ci nekk man newu ma amul mais vraiment mel na nii daal politique wala corruption moo ci moo ci ànd man loolu moo ci sama xalaat parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ. yàq deru nit jaaduwul bon looy wax itam nay loo xam ne lii lu lu avéré la nit ñi am nañ ko xam nañ ko mun nañ ko def. mu mel ne jamono bi ñu toll nag askan wi taxaw nañ lank ne mbir mu ni mel daal nanguwuñ ko ci usman Sonko benn yoon ndax fi ko sénégalais yi teg waaye tamit nag ñoo ngi xaareen yoon def liggéeyam ba xam loolee fan lay daal di mujj.